merci monsieur le président monsieur le ministre ñoo lay nuyu ak sa collaborateur yi nga àndal yëpp ñuy ñëw nag ci bis bi nga xam ni bis bu am importance la ci ñun ndax dafa am ku dugal recours pour que Karim Meïssa Wade du bokk ci élection kan moo dugal recours bi Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall la nga war a wax mooy lala Farba Ngom a fii ci assemblée bi danga jël ma jël boo yéegee ci kaw loolu lan lay laaj nga tontu ci ba pare door wax ci sunu président. Serigne Sa Serigne Meïssa xanaa moom amul ndey conseil constitutionnel ndax 2019 dañ koo éliminé ndax ni kat moom nekkul ci liste ñu ñëw 2024 ñu ni nationalité pourquoi 2019 boolewul ci woon nationalité kon conseil constitutionnel ñoo yey ab luñu yaakaar ci ñoom ba di leen topp nag ñu leen xamal ne nag parti démocratique sénégalais mooy parti bi nga xam ni élection locale quatre cent et quelques mille la am te sunu leader le président Karim député lui seul ak un peu de euh, alliés yoo xam ñaar lañu kon ñun suñu parti du parti bu ndaw li ñu koy ragal ñoo ko xam ndax damaa dégg démb am ko daan euh, PDS kat intercoalition moo tax ñu am sax seize député wala dix-sept ma ne ko xamuleen parti démocratique sénégalais mooy parti bi nga xam ni moo gën a dijju ci Sénégal xam nga lu le président maître Abdoulaye Wade dafa yor ay nawleen yoo xam ne ay doomam seeni doom seeni sët seeni lu ne tey ba léegi kenn mënu jële ci PDS ndax kenn mënu leen mooy li nga xam li ñu demandé mooy report des élections report des élections ndax suñu candidat dafa war a ko diaspora bi nga xam ni nag problème nationalité ci ñoom lañ ko dóor ndax suñu doom yi nekk biir nationaux amuñu droit nekk président moo ne am nañ droit nekk ay footballeur muy loo xam ni nag ñoo leen koy avertir conseil constitutionnel ñun du ñu ragal ñun du ñu dellu gannaaw ñun xeex bi moom lañ mës a dëkkee depuis vingt-sept ans plus kon nag doomi Ablaye Wade yii ku leen yaakaar yaa leen di xuuf ci ay plainte ñoo ngi toog di leen xaar je vous remercie. Non, écoutez, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. L'article 111 précise a plus besoin de réponse.

Obrigado.